salaamaaleykum ñu ngi uh, ak uh, jaraaf aadama uh, Mbengue jaraafu Soumbédioune tey moom lañ seet si fas yéene waxtaan ak moom te li nga xamante ni moom li ko aada cosaan may ci ak ci li nga xamante ni moom mooy fii ci réew mi ak xew-xew yi nga xamante ni nag xew na fi ñu fas yéene waxtaan ak moom tey mu jukkil ñu li nga xamante ni nag moom la gis ci li xew ci réew mi jaraaf ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen sant di leen dalal jàmm di leen wax salaamaaleykum. jaraaf euh, réew mi génn nañ ci ay élections gis nga li fi jot a xew ci wàllu criminalisation góor jigéen ñi ñuy wax ak euh, waa sàmm jikko yi aussi itam ñu ngi ciy génn di ci wax mais boobu ba léegi ñu mel ni yéen dañ leen déggul ngeen àddu ci tey ñu ñëw. seet si la tey d'abord sa kàddu ci loolu nga xamante ne tey moom la waa sàmm jikko yi di xeex ngir ñu bañ a ñu criminaliser li nga xamante ni moom mooy góor jigéen fii ci euh, Sénégal. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen santaat di leen gërëmaat di sant sama mbokk lébu yi comme ni ma koy waxee. di sant région de Cap-Vert yëpp di sant di leen gërëm di sant aussi waa tànk su ma ne tànk wan ngor wakaam yoof Soumbédioune ñooy lébu ndox yi ah nga may laaj question boo xamante ni question bu doy waar la ak fu réew mi toll ak wax yi nuñ ci bare dëgg la sàmm jukko yi contacté nañ ma woo nañ ma ngir seen xeex mais man du ma xeex pour xeex rek te xaw ma xeex lan la parce que am naa yaakaar ni nit bu la woowee ci xeex da ngay xam lii ngay xeex lan la ak lan moo ko tax a jóg ak lan moo nekk ci gannaaw loolu moo tax boobu ba léegi waxuma ci tamit te dugguma ci te dañu nekk réew moo xamante ni dafa naq dañu naqaree wax soo waxee fii ngay waxee ak fi ñu koy dégloo du doon benn parce que dëkk bi jaxasoo na affaire ñaari tur yi bari nañ fi. mais li ci président wax yaakaar naa ko mu doyul dara dootula doyati parce que li ci président wax nee na tànk moo ngi fi loolu kenn du ko fi def kon ñun lébu dañuy tënku ci loolu respecté kàddu président parce que ñun dañu takkal nombal tànk boo xamante ne du ñu xeex ak buur waaye tamit du ñu nangum buur nappaaje ñu kon président wax na ci wax ju am solo man lu ma gën a ñor mooy naka lay fexe ba ndaw ñi nekk Gueule Tapée Fass Colobane Fann Point Amitié Médina ndaw Sénégal naka la ñuy fexe xalaat yi nekk ci ñun naka lañ koy àggee président de la république pour mu mën a jàppale ñooñu parce que moo ëpp solo parce que dëkk bi toll na foo xamante ni jaxasoo na ak suñuy projet naka la ñuy def ba kenn ku ci nekk gis sa bopp loolu ñun la ñuy xeex hmm. te ci loolu la ñu taxaw fexe naka la ndaw ñu amee xëy mais man jaraaf en tant que jaraaf dew ma ci biti di xeex pour xeex kese wala xeex pour contre nguur wala pour contre état xeex bi daal doy na waar moo tax man daal gisaguma si sama bopp te am naa yaakaar ni nii muy déroulé tamit bu dee na lay déroulé man duma ci gaaw a bokk. Mm-hmm. Mm-hmm. tey euh, yow yaay euh, jëwriñ bu njëkk. fii mm-hmm. ci ci Gueule Tapée parce que mën nañu wax ni que ni tey buñ doon euh, wax ci wàllu gouvernement dañuy wax ni que yaay premier ministre bi hmm? sa mission. par rapport ak jeunesse bi. waaw sant yàlla rek sama mission ak jeunesse bi mooy wax ñu dégg te yàlla may nañu kàddu gi ñoo ngi wax ñoo ngi dégg mooy jëf ñu jis yàlla moo ngi dogal ñoo ngi jéem moo ngi àntu mais dafa bari lu des loo xamante ni état moo ñu ci war a jàppale te jàppalewuñu si parce que ñun ñoo gën a jege population bi ñun ñoo gën a jege ndaw ñi te léegi ndaw ñi la ñuy nax di leen dugal ci yoo xamante ni ñoom xamuñu lan la. parce que dañ leen di jox ay information yoo xamante ne baaxul di leen dicté ci affaire yoo xamante ne waruñu ci dox ñun lébu nag dañuy yor ci jukko ak valeur lépp lu ñu fekkeewul bopp bi duñu téye ci génn gi mooy ndaw ñi li may wax rek mooy président mu dégluñu ñu wax ñun lan la ñu xalaat ci réew mi xëy ne buñ ko ko waxee comme ñun ñoo gën a jege population bi suñ ko ko waxee bu ko defee yaakaar naa dëkk bi dina jur saafara saafara gu baree bari bari mën na ci nekk parce que ñun yàlla dogal nañu ñu amuñu sens interdit dañuy dem si grand place yi dañuy dem fépp fu ndaw ñu teg ataaya ñoo ngi toog seen biir di leen déglu pour xam lu xew ci réew mi te xam nañ ci lu bari loo xamante ni buñ ñu mayee pexe buñ ko àggee njiitu réew mi rek dinañ ko ko àggee parce que loolu moo ñu fi toog parce que ñun duñu xeex ak buur daal. Mhm. léegi du ngeen xeex ak buur waa ñu gis ni que ni coow lu rëy jotoon na am ci marché bi biñ koy taxawal. Mm-hmm. ak euh, collectifu jeunes yi nga xamante ñoo bokk fi ku mel ni maître Babou Diop bokk ci collectif boobu sax euh, bañ ci jotoon waxtaan ak moom. Mm-hmm. Euh, mënuñu wax jun tamit mënuñu wax Gueule Tapée te waxuñu Soumbédioune aussi. Mm-hmm. tey ñu gis ni que ni am na beneen équipe communale. bu ñëw agsi tey ana rulu jaraaf. tey ci équipe boobu nga xamante ni tey ñoom ñoo fas yéene yoraat li nga xamante ni mooy commune bi fii ak juróomi at ci kanam. Mhm. dañu gis ni que ni marché bi ñuy implante nii di ko defar bees euh, am na coow yu ci jotoon am. Mhm. Soumbédioune aussi am na jumtukaay yoo xamante ni euh, soxla nañ ko ba ci euh, quai de bi aussi ñi ngi xaar mhm. pour li nga xamante ni état am ci loxo ñum ko teg. loolu yëpp ana ndoxinu jaraaf ci ci ci mission yooyu. waaw sant yàlla boo ma laajee lu jëm ci marché Gueule Tapée ak quai de pêche Soumbédioune dinaa sawar wax parce que wax dëgg yàlla élection yi ba mu commencé candidat bu nekk ñëw na fii seet si ma mais ci candidat yi ma si seet si yëpp benn candidat laa méngoo noonu moom xalaat ñu koy wax na Ndiaye ma gis ni moom li mu def si programme am bu ko yàlla mayoon commune bi dina ci doxal man li ma xalaat mais yàlla mu dara tëwul yàlla dogal ni gañewul ku ñuy wax Abdou Aziz Paye moo gañe te sunu mbokk la mhm. ñu koy ñaanal yàlla tamit mu jikka parce que jikka mooy njiktaayu njiklaayu commune bi Gueule Tapée Fass Colobane mhm. tamit xeex bi ñu doon xeex ci marché bi tey lañ ci gën a taxaw xeex parce que dañ ñu fal pour loolu ki fi nekk bu defoon bu defee comme ki fi jógee ni mu def rek ñu def comme ni ñu defoon rek parce que ñun duñ ci taayu duñ ci sonn parce que ñun fii ñun ñoo ko moom sunu moomeel la sunuy yaay ñoo fiy ndugg sunuy papa ñoo fiy jaay sunuy maam ñoo fiy jaay benn taxawaay rek la ñu am mooy na baax su ko mënee baaxal alhamdulilah ñu ànd ceeg moom bu ko bëggee bonal tamit ñu ñu ñu moom rek te xam ni liñ doon bañ ci kële moom la ñuy bañ ba léegi rek amuñu lenn loo xamante ni lañ ciy teggi tànk lu jëm nag ci quai de pêche Soumbédioune kooku sunu moomeel la parce que sunu suufu maam la ñu jël joxe ko ngir ñu def fa quai de bi suñ ko fa defee yaakaar ni Soumbédioune dina am ci xar kanam yu bees yu mu jëm ak yokk naataange ak jën yi nga xamante ne bu jën mësaan a lamb dinañ am ci ay chambre froide yu ñu ko dugal mais yàlla dogal ni boobu ba léegi loolu du cas bi parce que quai bañ ko liggéey ba léegi ñu ne marocain yee ñu ko may ba léegi gis ñu inauguré ko te gisuñu benn jéego boo xamante ni def nañ ko si te amaguñ ci dara luñ ci leer ñu siy woo nag le président Macky sàll di ko wax mbaam gàtt na mais ci jur gi la bokk soxla nañ sunu quai bëgg nañ mu wooñu ñu waxtaan ak moom parce que nit boo ko defalee ba pare yow doo ñëw imposer ko li nga koy li nga fiy def déedéet da nga koy laaj loo bëgg mu wax la lu mu bëgg ak yow lii nga nar nga xool bu ci gën a baax nga def ko ñoo ngi koy déglu di ko tàllal loxo parce que ñun état chaque fois bu ñuy wax tàllal loxo rek la ñu mën ci moom balaa ñoo def leneen parce que ñun yareew ñu ñu si xulloo ak xeex ay sànni xeer ay saaga comme ni ko suñuy naataangoo yi defee dañuy naxante ba am lu ñu bëgg wax ak moom ba am lu ñu bëgg ci yar ak teggin parce que ci loolu lañ ñu yaree te loolu moo tax ñu fal jaraaf te man képp ku may woo ci loolu laa lay woo woo ma benn xale pour mu taxaw ci mbedd mi di saaga wala ngay ñàggi teggin ku la mag wala ngay ñàkk teggin sa kilifa lépp pour Soumbédioune dox lépp ci yar ak teggin lañ lañ ko teg parce que mooy sunu slogan ñun waa Soumbédioune mhm. eh, ci ci ci ci événement bi nga biñ lay introniser. Mhm. ñëw nañ fii ak yow ànd ak yow ci eh, fan yooyu mais dafa mel ni que ni eh, dañ doon wax ni jaraaf ku mu ngembul ku àndul moom defe naa ni ci wàllu élection yi ñëw dinañ daanu parce que gis nañ maire bi fi nekkoon amoon na kàddu yu mu jotoon yëkkati. Mhm. mais mu mel ni kaddu yooyu euh, bokk na ci lu ko waddal. dëgg la waaw xamoo yàlla mooy mooy dogal lu ko neex man maire bi ba mu faloo deux ans laa sentir ni du kuy defar gox bi sama mbokk la nag tey bu jàppale doon am moom laa waroon jàppale pourtant jaraaf ki mu gënoon bëgg mu gañe gañewul yooyu ay wax yu yàqu la ñun mën nañu ñaan dañuy ñaan nag yàlla di dogal lu ñuy ñaan lu bari muy am mais yenn saa yi da ngay ñaan yàlla yàlla wan na ni fi nga ko bëggee ak man fi ma ko yaakaaree bokkul te yàlla Abdou Aziz Paye la jox ndam li moom mooy sunu meer te pourtant bu doon man maay maye si programme yi ma suivre Thierno Ndiaye laa koy jox ba tey tey tey tey tey laa gën a gëm ni moom kese mooy defar commune bi tey laa ko gën a gëm mais bu la Abdou Aziz seetsee pare nga pour jàppale ko pour ngeen liggéey ensemble. man gox bi laa am awma lu dul gox bi awma lu ëpp gox bi ku ma jox sama cër ma jël ko ku ma ko joxul ma toog l'essentiel état xam na may kan nitu état yi xam nañu maay kan ministre yi fi nekk ak directeur société yi doole ji ñu ci bari xam nañu maay kan parce que am na ñu bari foo xamante ne jaar naa ak ñoom man nag bokkuma ci ñi nga xamante ne dañuy jénn ci télé bi naan damay def lii wala damay wax lii mën a mën a goo gis du yow. da ngay xaar ñu ne la yow la mais kenn ku ci nekk xam nga sa morom lu mu capable ak lu mu capable kenn ku nekk xam nga sa moroom lu mu man ak lu mu manewul mais l'essentiel ñoo ngi toog sunu rukk ñu fal ñu jaraafi Soumbédioune ñu war a développer Soumbédioune développer gox bii ñu dëkk ba ndaw bi fi nekk mën a yëg sa bopp ci lii ñu ne ñun loolu la ñuy ñaan yàlla mais Abdou Aziz Paye sunu frère la buñ ko jàppalewul kan la ñuy jàppale parce que du ñu toog cinq di galère que yu ñu galère ñu ñaanal yàlla toog cinq ans mu galère ko moom nu muy liggéeyee ak doxalinam ñoo ngi koy may temps bu ndaw di xool fan la teg bëtam ak fan la bëgg dem ak fan la war jëmale gox bi fu dee fu baax la ko war a jëmale alhamdulilah dañ ciy ànd ak moom bu dee nag daf ñu nar a jëmale ci fu ñu keneen jëmale woon non non dañuy jàkkaarloog moom te xam na du dem parce que ñun lépp lu suñu bët may rek sunu fit daf ñu fay àggale amuñu lenn loo xamante ne moom la ñuy ragal wala ñu tëdd di ko tiit wala ñu koy xalaat déedéet duñ ko def l'essentiel daal Sénégal moo ñu ñor te Sénégal moo ñuy mus ñor di ci profité occasion nag di féliciter le ministre Matar Ba ci xew-xew bu rëy bii nga xamante ni moom moo am Sénégal Sénégal jël ndam li ci Coupe d'Afrique bii ñu jóge ñun ñëpp doon ci ñaan yàlla yàlla antu luñ doon ñaan mu am kon dañuy wax santaar yàlla bu waax parce que ci ayu président Macky Sall la ñëw ku gis nen da nga naan nen a ngi tey président ñoo ngi koy ñaanal mu àggaleeg sago fii mu bëgg a yóbbu réew mi mhm. yàlla may ko mu àgge fa parce que tamit neexul ba neexul moo ngi liggéey te moo ngi def ay jéego que bu defee leneen ñu taxaw wax kon tey bu defee jéego dañu war a taxaw ne ko waaw góor kon waaw góore président si lii nga liggéey ak Coupe d'Afrique bii fi ñëw ñoo ngi la ci waaw góor di la tàllal loxo ñun waa Soumbédioune te xamal ne la li ma la waxoon rek mbaam gàtt na ci jur gi la bokk te nga bàyyi ñu xel te xam nañ ñu Soumbédioune say doom lañu pare nañ pour accompagner la sa projet boo bëgg taxaw ko ànd seeg yow sa gannaaw pour xeex seex yow. lu ngay looy tëjee lu may tajee mooy li may faral di tëjee rek sant yàlla bu baax a baax sant sama yaay di gërëmaat sama pap di yërëm magu Soumbédioune yi ak kilifa yi fa nekk yëpp di leen wax ni jaraaf Adama Meng moom doomu Soumbédioune la. te doomu sumba jun lay des di doon du nuyu nag au conseil collectif CNL bu lébu boo xamante ni ñoom ñoo jiite région de Cap-Vert yëpp ma bokk ci tamit kon maa ngi leen di nuyu la saltiga Maodo jiite ka nekk ci bopp bi ñun ñëpp ñu nekk ci kuréel bi kon ñooñu tamit maa ngi leen di ñaanal jàmm ñaanal leen salaam du nuyu sama xarit Pape Diagne la grand sëriñ maa ngi lay nuyu maa ngi lay siyaar lekki maa ngi ñaanaleel tamit télé bi ak rajo bi Obs TV di tele bi yoo xamante ni yàlla na yokk ba sut su site internet yi dem a dem a dem ba lépp loo xamante ne ñoo ngi koy teg képp ku ko gis rek mu safoo ko maa ngi leen di santaat bu baax di leen gërëmaat bu baax di leen nuyu di leen wax yàlla nañu yàlla boole yiw gii ñu fi dajale te lépp doon tey Sénégal comme nii ñu béggee ñu bég continuer noonu du nuyu sama mbokk yi nga xamante ni képp koo xamante ni takk nga ndombal tànk nekk Sénégal rek maa ngi lay joxaat cër gi nga moom di la wax la jaraaf de la jeunesse jaraaf bu gën a xeebu bu gën a tuuti moo leen di nuyu yéen ñëpp di leen delloo cër bi di leen waxaat salaamaaleykum jërëjëf